awuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim li nga fas yéene jàng fii marsiya Cheikh Mouhamadou Mbacke Mbacke mi nga xam moom la ko sëñ Moussa Ka defal Moussa Gueye moo koy jàng talmiidu Cheikh Mouhamadou Moutala ibnu Cheikh Khadim bismillahi rahmaani rahim barkeb Khadim Rasul mu di dil noonu dee ci jooy aduna dellu danoo juuy war ngeen déggoo te wooy jërëjëf ñu tool ba wàcc na wuy tool bi leemu dellu booy baykat yi lee ñu dellu fuuy gàncax ju ndaw gi leemu booy ngir walikat balaaku na adduna yow maa la fase lu mat juróom ñaari pase soo doon jigéen dootum tase sa war yu riñ landi na jee ca wam sasin keroog ba laa la fase alar ba jee ca an sasin fase ma dog na adduna war nga nu aama wam sasin del nu war tam sasin del nu war caan sasin sunu xol yépp Seex Bamba dem ci wam sasin Seex Ibra dem ci tam sasin Seex Moodu Ndumbeyaan sasin tarbiya gaal ga tarde na tarbiya ruuga leemu saay mbaaram ginam ye leeñu naay diina ju toor be leemu ñaay ahmadu ñag ba ràppana soo xalamee mbaa nga xiyaas ba seex moodu ni jaas adduna dootu kulaas dootu kulaas ba tax nga geesu adduna ba jaba moo siiwu demin ku xalamul sax du ko seen roy na ci yomen baaw demin roy ci sëriñ bi wàcc na yeneen fukk ak ñaar la ni mes weeru gàmmu nuy melas fukki ñaar la ni mes ci wu koor yi na àjjana sëriñ bi ñoon roo demin alar balaa mu giseen gaynde dafay niroog yor yor ba tuuba yëngu baatin bu yëngu na ci biir saayir sa yëngu fas yaa ngi fenkoo gi sufoor mbiram sëriñ Moussa ne keroog baatin ba yëngu ci biir saayir sa yëngu na fas yaa ngi fenkoo ki sofeer mbir ma riim nga ëpp na Seex Bamba dajeel ngir ñoo nuroo woonoon cafeel Bamba xaroon na leen ak wa ginee jaar jana keroog ba réew mi di ko teer muy dunu fépp ndox ya di tuur la xew yi yàlla teer ni teeru ruugaan ñana Seex Moodu Ndumbe Saani Njaay Seex Njaay ngela suwaaloon demba laay Seex Moodu Njaay ngela suwaaloon dumbe laay merci ya jooy ma waay wuy taburi bala yaa Seydi Muhammadul Mbakki Xaadi Muhammadul Mbakki kenn du laas ke ne mbëggee nde yow sa taab bi lan moo ko mu tubaab cosaan ci wàllu maam fa moom piir la ndey jeedu siyaan ca Mbàkke balla xejj maama sowaalooy ndey maam jaarati ñoo di mbokki maam ndumbe ma jur ahmadu daam mbàkke mu soobe yàgg ñoo bokki ndey te baay ci wàllu maam ak wàllu baay mu dellu fa mbokk nga jaay jinni la wàcce maam ndumbe ndaan mu ahmadu ndumbe dambe na sowa ki penk yóbbu na ruu yëga toppoon jaaraama Cheikh yaa soppa Bamba Ahmadou ni mu soppee yónnee na Ahmadou cofeel ga na yàgg na yaa yor ni mu Baabakara boole ci bigu boole njambaaru Aydara safir wu réew bi landi na jàmbaar jëndoon na Badara Aliyu jomba Aydara Ahmadou ne mbé baay weeru Badar wa suuxi mook badaraat nirooy demin bamba di doom daay taxaw mbir ya dëppooga sore na ba yonon di la di dem madinatu di ñaan aliyu ay dara fanaan ca lal ba noon ya ràppana keroog ba bamba ne melos tabi ci géej ba ñu mes gëm ya yokkoom yaakaar ya taas moo doon na tool ba mag ma nga naa bamba ka jox mi nam ni ko sosal ma say moroom jëwriñ nga tool bi yaa ko maam jaayi mbéykat metti na mboolem murid yi mu ni leen maam Ceerno mat na yeewu leen bu leen nelaw liggéey leen te jox ko Bàmba tukki na daara ju naa ko daam yaa di magum yàlla gi jaam yóm naa ji def la ni daam ngir kongo bel soo na moo jara way te jara jooy daaw nu jay daaw nu njuuy moo tee nu fagg tey jooy ba faatu maam doxal dina ku deeti teela séblu tey waaju teela jéblu noor ak naga du nappalu baykat bu réy ba jiitu na cheikh madu nu mbee yaatu waar tambay ma wuutu na jihaar xandoor ba damma ci waar wuyu mbaykat bu lomb wàcc na Cheikh Modou Ndoumbé yaatu waar te ma wuutu na jaar xandoor ba damm ci waar wuyu Mbàkke ba la wàcc na bay na pataar bay na bayaar bay Mbàkke baari ay sabaar bay na ci maarooki wanaar wallaayu loolu yàgg na bay daaru bay Mbàkke Kajoor bay na ci bay na ci joor seexal na seexi balo coor buriyu saalu màkk na weetal na ñi ndéem la ba saam xol yaa ngi firfir di saam weetal na ab lu mafandaam xarit bu mag ba ñàkk na dundal nga réew Sénégal jàll nga ñépp yaa di gaal dugub suuna yaa ko yaal loo ma wol li nangu na moo suuna tee nga jooy ma mbaa deete yow nga jooy lama moo feera tee nga feenu ma nde yow sa xur na déglul ma lim fi ay waaju ka déggu dana luum te xam ne kooka du moroom jagle gu réeg landina moo yaa kanam te yaa gannaaw te ñàkk jam-jamu gannaaw ngir musula def defin wu ñaaw woo ne def ko jombe na jaay ne sëriñ bi ak rawam te musulay juuyoog ndigalam ba jeexal ak dundam mbàkki gëmam nga yàgg na topp na Seex Bàmba juróom fukki juróom amul ci waa mbàkki moroom musula geesu àdduna ca at masir di xelasaam la dal di buur di daw xaraam fekk si bàmb sunu maam ngir xam ni saalum yàq na ci at ma di xeresaam la dal di di daw xaraam fekk si bàmb sunu maam ngir xam ni saalum yàqu na ba mu ñëwee Mbàkke Kajoor fekk naa lar baaj jibeer lañu xewal mu dal di soobu ci yoonu àjjana jabal jabal sëriñ bi am nosam def gumba jox ka tumam fu mu toll yi sàkku ngërëmam laa jël sëriñ daam fekk na keroog ba tey masula taay masula yàgg fi jataay masula tekkim laxasaay masula wax ni sonn na masula xëy dellu gannaaw te luñ ko sant mu waaw te du ko won ñaaw masal wax ni njàmb naa murit bu daw moo lay jëli def ndimbalal gaa yëpp tële ko yoon wi réer mbaa nga kale mu naa la yoon wi gàtt na sëriñ bi ñoo Mbàkke bawal mu def murit bu koy dawal ñu di ko ree di ko sewal te naa dundum gi sànku na sëriñ bi am fa yaari at léeg-léeg mu daanu fa bu yat di nuru ab dox boobu amu fit ñu naa ka sëriñ bi am fa yaari at léeg-léeg mu daanu fa bu yat di nuru dox bu amu fit ñu naa ka sëriñ bi wéy daaru ngir bañ lu xeet wa ki araam muy rooti tey dawa karaam ñu naa ko barke jafe na sëriñ bi wéy Tuubaa muy wéy topp ci moom di gën a way du faale baay du faale ndey béji du far barayu na sëriñ bi daal koy yabal te ko bu juyoon ndigal sëriñ ma mar jaaraay jubal say mbir te ya sotti na am na fu fukki at yu mag bayal ko ay dagg yu at fajal ko lu masa tawat tax na njaboot ga yokku na def na fa luñ mën la xiyaas ku ko xiyaas fànni xalaas ñu fab ko teg jóg teg ci palaas bu kerkeraan ya kawe na dambe na seer yaari ngërëm foofee la far sampee ne daan sunu nappatee xam lim ay jaloore yomb na sey musaat ne moo ami jalooraa ki te bare ngor te bare jom teewoon mu des si dem sunu mbir yépp yàqu na dem na ba Podor ak i xaay di xëy di gonta ak jaay ngir sàkku jël Bàmba i daay xuus na ca deex yi jàll na moo jëkk fab junni dërëm boole gi wursu wuy naa ngalam tekki loxal Bàmba mbagam musula sàkku la dina daanu ko jëndali jàkkeer di dem ba dox lu mati weer tàngoo sow ak jandaar te booba njëgg jafe na mas nay boroomu turni ñaan na mag ña daa def ca cosaan ngir sakku addiya e ba naan ci dexi góor ña mandi na léeg-léeg ñu boole koo gi gaay léeg-léeg sëriñ bi ñu ko kaay muy dem du yóbbu ay yi daay ñu far ni Bàmba tukki na ca mooma la di daay Mbàkke Bawol ànd ki gaay dem kër mbëggéy di wut di daay di bay ba suusa sàppi na at yi sëñ ci géej la am fa kër mbëggéy di géej kajoor ña duy ci bani géej ku tilimoon tey sangu na mu ñëw mu gor ci suusi waay xabaar na daari njóogu njaay sëriñ bi ràng kay médaay waayo mi ñëpp wàbba na sax na fa fukki at mat bay na fa ay dagg yuwaat toxoo fa ñëw jurbel mu xat mu sanc suuf si mbampana jumaa ji keroog ba ñuy sosoo junne la sosoo te masula yàqalam fa soo laa jël sëriñ Eesa xanaa soldaar si keroog ba ñuy soloo dongoom yi yëpp ndajaloo njaareen di jooy ak jaloo mu naa badal yëngootina saxi fukk ak saxi juróom lay bojji jébbal sun boroom daa mbàkke kenn du boroom yaatee ba xiif te sadduna nga yoonu tarbiya yeesal nga ngirum tarxiya matal nga mbooleem saate ya suubu nga yoon aljana mosula delloo aji laaj ku ko tooñ nga la daaj cey ba jobaaka ñeme naaj mosul nga naaju tàng na dey maan la daa demee ci yoon mbaa muy jamaale tànki niin du sur bu keeke dox di teen du lekk bëj naare gëna key li mu def ci Sénégal mën si ko dox di misaal key li mu leeral ci bayaal leeral na suuf si mbampana ñi mu may ci réew naari góor diggante kajoor baa doolo mbaate doomi buur mu ne si ko lim jafe na sëñ Moussa ne may na ma yetti fa si naar may ma tukkal bu saf ba daar sëriñ mamar jundee ko ñaar ku wet di laajal bàmpana may ma fëkkër ma njaay saqum juróom maa fa jaay may ma góor guñ naam ma njaay bay si la na billaahi mooma jikka may téeméer te jëndew ko way te dub liggéey bam ma faye saqum njëriñ ma fëgg na ayaa sëriñ ma bàcc njaay jooy la ma rek saan na jaay dootunu am gookuutu baay te gën ci góori àddina moo gën i baay te gën i ndey ngir dex la woon bu mos la dey ku agsi naan sëmbata doy njëriñ la wur na àddina sëriñ Mamar Si laa ngi jooy moo ki Umar ma sant jeey ca yàddu naa ka leen a jooy seen waa ji baax ja jiitu na Umar la ko faloon ni buur fu mu tollu may ko naari góor te boole koog yiriw foor mu xam ne tey fal yëkku na moo tax mu ñëw fi man di jooy ni ma dama gëlëm te yooy jooyal ma yow ki jooy saa baax di jiitu na bu nu yóbboo dëgg mu te jooy kenn dootu namp ween wu tooy fer nanu léegi tey ñu yooy woy ne ñépp a fàddu na Amadou Mbacke am soxna Mbay Seex Mbacke yaari góor yu ñi war a jooy ba say seen mbër mu mag ba daanu na bul jeema lim ñi war jooy bër yëpp léegi ñu ngi xooy ñépp ngi di jooy ku ma sa xool tey gumba na sëñ Moussa ne xëj seen lee gor yi mel ni seen léegi ñépp dafay diginin gañoy tubéy ya dagg na moo tere woon muy sakkataan di rukki teen aka wayaan te mënu tee dem lopitaan ndax xol yépp ràgg na woy nunu wuy noo ko torax kenn dootu am ku la sarax kenn dootu laaj ku la jox daam ba ki jant ba sona mooy ma ngi siin bu ñu ëfal te naa ku bëgg yëf demal moo jaafuruy na teeti njël sunu magasin ba tëju na li dala fii ba weesu ngaay waa joofi gis mu yori gaay xamali moo joxoon sa la jar sa ja wàcc na sëñ musaat ne dala fii ba weesu ngaay waa joofi gis mu yori gaay xamal moo joxoon sa la jar sa ja wàcc la dala fii ba tet jigéen seex boo fi gis mu yor jigéen daa mas na canal jigéen mbaa kër gërëm gërëm gi na la dala fii ba ca jolof muy mbokk mbaa pëlëg wolof ku mësa ñëw tawal ko lëf booy dellu faw yóbbu na mooy gënnu góor gu mag rijaal doom yi maa ngi leen seen baay ba yàlla dara jaal ngir xam ni gëm nga landina taxawlu naa ma sant leen te dénk ngir génn doo mel ni yéen yéen seen place ba keena Sëriñ Musaa ne mooy génn googu ma di jaal yéen doonge maa ngi di jaal seen baay ba yàlla dara jaal ngir xam ni gëm nga landina taxawlu naa ma te dénk leen te dàkk ngir jenn doo melul ni yéen yéen seen ba kawe na seen ndeyey sañu jigéen seen baaye raw ci wile yoon seeni nijaay ak gën ñëwoon seen tëb tëbin nga kawe na doom tëb tëbinu baaya may dem mu ndigam mbaalu ko may du ami ndam du ami way yow ceer nu yit welleebu naa jéem leen ma seeni seen nijaay jéem leen ma seeni nijaay te jéemaaw seen tànki baay te jéema boole seeni gaay te bañ a déglu àdduna xabaane bul déglu rambaaj toppal sa man te laaj ndigal lu neew matul a xaaj ngir yàq yi bare na téere dafay digle sangaay waaye loo téere dafay déglu sangaay te sanguwul bu leen ma jaay jaam du digal sangam sangaay waaye la woon wàññiku na wax nga laa woon wu ñu tëj tey ñi nga may ci jeeka tëj ci réew ma maa ci gën di xaj waaye sëriñ bi màgg te xaj bu toppee ci boroom di daw di baw ma te bu deselee ñaar ci loxoom te ñu ko ay topp na asaabu kafe ngej ginaan seen xaj ba fanaan te benn xaj bi dem ginaan ci xaji mboole Madina jullit ci ngeen jàdd naan Musa te ñaan ko banum naan bi axi saari ramadaan ci kaw saraa ki aljana jullit ci ngeen jàdd naan Moussa te ñaan ku banu naan yaa xisaare Ramadan ci kaw saraak aljana ñu ngi ñaan waa kër si ngu dumee ahlu mbakkeeg ahlu mbusebe ku ci dégg te kontaan na ñaan nu yàlla nu yàgg mën a yëkk ci xasida yi ak wolof yi ci biir taalibe yi bi jaahi rasulillah bi def xadim rasul te di ñaan Cheikh Moutara sunu sëñ ba ak njabootu sëñ Tuubaa